شخص جاي نبي اللوسنون أسيم المبينون هو المصطفى المختار والمؤين بينار والمصطفى المختار وخوار وإنك لا لا وإنك لا لا وإنك لا لا خلقنا زمان وإنك لا لا شيخ ساجد وإنك لا لا خلقنا زمان وإنك لا وإنك لا لا وإنك لا لا خلق نسيم وإنك لا لا وإنك لا لا خلق نسيم أنا كنت عندك ndax woote say mbokk ak say xarit ñëw wuy si dafa yombul soo ko amee ñëpp ko am ak ko xam muy si la loo def lu kontaan ak dellu sant yàlla bés bi daal moom ni la mëna deme ndax ku ne xam na ne ablay ablay ñëpp la ablay national la moo tax buñu wote wootee tey suñu màggal gi ci peex ñi ko dégg fu mu mëna a nekk ci àdduna danañ ñëw teewe ko ndax bés mel borom bés benn mel vraiment bés bi neex na lool réussir na mashallah lañ ci doon seen ka lañ ci doon sentu liñ ci gis sax kawana suñu njort vraiment bés mom neex na torop waaw xana di leen gëna ñaax rek ndax mom ku xol ci mom do li nga def lu bax ci say bokk ku xol ci mom da nga ñëmé njabot ku xol ci mom di nga ñëmé di nga ñeme def lu bax ci bokk ndax loolu moy jikko Ablaye def lu bax moy jikko bari nañu bari ño xamante ñing koy wax ba ñing koy tuddu te xamuñu ko parce que wuñ ko nit ki soko ko wu mëno ko xam mëno ko juger bala nga xam moy kan ak xolam nan la ko yalla def xol bi ko yàlla may nga jege ko ci ngay xam xol bi ko yàlla may nit ku baax la jullit pire la murit sadiq la ku yar njabotam ku bëgg ay mbokkam ko tax ay doom dañu war roy ci mom yore it doom joo xamante ni dafa të moom doom du tox du naan parce que bëgg ko noonu la leen yare ñëpp a ngi ci peggam bëggul kenn sori ko kon kuy xool ci moom da ngay xool ci wala ci moom ci lu baax ndax ci lu baax rek lay dox bu dégg ba teg subaak ngoon foo ko fekk mi ngi dox lu baax ci mbokk mi ngi dox lu baax ci njaboot mi ngi dox lu baax ci ku wërsëgam nekk ci loxoom man njabootam gi nga xamante ne maa leen jur yor leen chaque jour la di wax seen papa ma sa exemple nii mu def tey ba ñëpp fu mu wootee ñëpp wuy si ko noonu la nga war a xool roy ci moom def ko ubbi seen bopp dem seeni mbokk di defanteeg ñoom yu baax di wax yu baax tey ku ne gis na peex li fi ne ak li fi ñëw cérémonie bi fi am musu fee am ba peex da leen nekk peex ba tey bi cérémonie officielle musu am ci peex daal jikkoom rek nit lu mu am ci àdduna jikkooma ko ko may ak xolam ak liggéeyu ndeyam ak ñaanu ak ak ñaanu sëriñam ay doomam war nañu xool ci moom parce que exemple la ci lépp nag exemple la ci yor njaboot exemple la ci yor kër exemple la ci ci dimbali ay mbokkam ak dimbali ay jàmbur chaque jour boo waxee mooy lu may wax damaa bëgg sama doom di ko fekk damaa bëgg mooy roy ci damay def la ñëpp ku bëgg moo ku def lu baax mooy Ablaye Mbaye njaboot gi daal li ma leen di ñaax ak li ma leen di moo nañ xool ci moom toroy ci moom du wax bëgg ko du ko def du faat waxtu du tiim ma ko séeg moom léegi ça fait trente ans presque ma xam ko bu baax xam mooy kan loolu chaque jour ak sama njaboot dina xool ci moom du roy ci moom loolu laa leen di wax ku roy ci moom doo juum ndax nit ku baax ku roy ci moom da nga def lu baax da nga def lu baax ci sax si xiirtal gi mu xiirtal lu baax si njabootam. Mhm. ci mel ni euh, ab. Euh, ma jóob euh, ma jóob. wala mhm. Abdoulahat maa ngi jóg sax Moutala xam ne tey bu tiimee xasida yi xol sedd. Mhm. loolu yëpp mu nekk loo ji xeet mu xeer si yoonu mooy maanaam jàngale Serigne Touba mooy li ñuy wax fi léegi daa du hasard moo tax waa fi ma bokk tax ak tam fay gi Serigne Touba fay baayam ndax dafa bëgg Serigne Bamba da ko bëgg tey ma ko dara moo tax yàlla fay ko te doom ji jàng xasaay ba pare Talla Mbàkke dafa bokk ci famille bu baax yaa ngi dégg ñu koy wax léegi nii Serigne Touba ko fayee Talla rek. ndax ku bëgg sëriñ Bamba am doom ju jàng xasaay ci géwél boo xamante ne dangay taxaw te jub di déglu yomb raar na yàlla koy def yàlla nag mooy dogal mooy xool li ko neex mu def ko moo ko def te it muy koo xam day encouragé ay doom ci xasaayit yi encouragé leen ci baal encouragé leen man sama waa kër duñu baali duñu dem fenn xamuñu ko sax bañ la xew ca kër ga duñu musique xasaayit la ñuy teg moom la ñuy jàng même anniversaire xale yi mu ko fi sax xasaayit la ñu jàng moom Sëriñ Tuubaa rek la bëgg te moo ko ñor ci la xiirtal njabootam Sëriñ di doom joo xamante ni yàlla da ko xiir ci xasaay di waaye lu mu gëm ak lu mu bëgg ndax fooyu ko xafewu ko réewu ko du la malgré du fo du sol pantalon ak chemise foo ko fekk bàyyi la lay sol bàyyi na yooyu bu yàgg ba pare dafa bëgg xasaayit lu xew Tuubaa ak lu ma doon day liggéey mais day ñaan permission bàyyi liggéeyam dem Touba def saa yi bu wàccee quatre heures daayira lay jëkk lay continuer ba vingt trois heures muy doog a ñibbisi ci kër xasaat yi mu jàng foofu ci foofu la wu ci da cee am farata ak Pastef moo xam mu mën li mu mën ba tey ba ba kii moom émission Touba TV da kon nañ dem nga jàng xasaay bu fekkante ne farluwul bëgg ko mënu ko kon du ko du ko teg ci plateau télévision euh, Touba TV en direct ñëpp di ko seetaan loolu daal doolu sant yàlla ndax am sa njaboot yàlla xiir leen ci yoonu lislaam ak yoonu diine sant yàlla yàlla nag mooy xool lu ko neex mu def ko ci ci ci nit ñi ne boo xamul la jàmbaar amul ku ñuy dimbalee am yàllaa ko sàkk jox ko ndey ak baay ñu jur ko macha allah takk ci yoon siraat waaye sëriñ Abdou Khadre ko ñaanal moo ko dimbali ginnaaw yàlla lii mu am tey jii moo tax mu ko kon dara du hasard du sant rek waa peex kenn mënu na fay Ablaye Mbaye ku bëgg bokk la waaye ay mbokkam tamit ju ko bëgg la ay mbokkam muñ ci jàppoon amaana bés bu tey du mel nii dañ ko jàppale taxawu ko dafa bëgg mbokk dafa yërëm mbokk daa néeg lu ne ci mbokk mbokk da koo jara lu ne moo tax bu xewlee seen ay mbokkam it da len di jaral lu ne ba tax ba bëgg bëss bi réussir ñu ñëw yalla mo dogal lolu muy nit ku baax ñu nak dañ koy sant diko ñaanal yalla rek yalla guddal fanam yok ko wër yok ko dëgëral waaw taxawayam lol lol lol lool mu yàgg jiite njaboot gi def li nak njabootam diko fekke ku bëgg mbokk la amul xajj amul sër xamal ko ko bëgg xamal ko ko bañ du dégg ñaaw du ko wax du ko def soo ko ne sa mbokk nangam sax mu ne moo nangam ak nangam dama ko seetlu na ko diw sa mbokk moom ñu la bañee moom man man la amee sa mbokk di ko bañ man kenn bañu ma dañ maa xamul rek waaye sama mbokk yi ma am maa leen gënal seen bakken bu ko xam jàppul kenn amul xolu ki ñaan amul xolu dara loolu ko yalla defal nak moo tax lii mu am tay jii mu am ko magu fi ñu ko mag fop ngi fi ali ya dogal ci mom ci mom la ko dogal boko ko mom la yalla dogal boko nangul ci la yalla dogal yóbbu nak nangu rek moy deug naa di sante rek nak di sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam sante sama ñaari wajur ndax man dong neewuma ci kër gi yoruma man rek ma fi nek ak samay nawle sama moom ci kër gi ñu ñoo xamante ne ñu baax lañ ñu muñ tamit mu di sant sama mbokk yëpp yi jóge Tëngéej ñëw jóge Dakar Fass Mbao fu ne waaye jóge na fa tey wuy si ma di sant sama xarit yii ma nekkal sant sama xarit yi nga gis ni Dakar lañ jóge démb ci suba lañ ñëw lu ma xewle ma gëstoo gis leen muy bànneex di naqar lu ma mënti xewle sama gëstoo gis leen tax xamle wuñu sama dara di sama goro bay ma jàpp ci nga xam moo yaay Ablaye bokk benn baay mu bëgg ma lool te ma rek man dong sama kër lay ñëw lu mu bëgg man la koy wax bu ma sañsee sax day kontaan daf may tagg di ma wooy ba keroog may may may may may may may may may may sumeeku mooy ku baax cu maa ngi sant ñëpp sant sama njaboot ndax supporté nañ ma te bëgg nañ ma man samay doom dañ maa bëgg xamuñu ko du man dañ demañu fenn man rek duñ ma gisu sax dañuy jaaxle ma toog sa yàlla na ma yàlla bàyyi daal ma yàgg ak ñoom di sant mbaab ba mais nga xam sama wujju la ndax jëkkëram góor gi am Ablaye bokk ndey sama goro bee mère Diaba cuuna ko jur waaye moom tam chaque màggal mu ñëw mook Asu Diaba sama njëkk may sant xale ñoom Tafa sant ñëpp seen taxawaay rafet na di santaat sama xarit yi nga xamante ne ba ma sama ànd ak ñoom ëpp na ñaar fukki at te dara ñaawul dara du ñaaw incha allah ma di leen sant bu baax sant sama mbokk yëpp teew ndax ñëpp nga ca bâche ba ñëpp ma ñëwal di sant samay goro ndax dama am ay goro ca kër ga muy ay xale yu ma nangul nag dima doxal samay service defu ma dara lu ma neex neex na leen lu ma bëgg bëgg nañ ko bëgguñu ko lu man xooluñu keneen man rek sant sama goro yi ci kër ga di sant sama jànq yi ma yow kër ga ak ñëpp man ñi ma yor ñëpp ma bëgg lu ma lu ma laal dañuy jóg kenn du toog biig ba tey kenn togg fajar lañu yow ne ci togg yeeg defar yeeg lépp ba lépp na bëgg ma ñoo ko moo ko waral man daa maa ngi sant xale yi di sant ñëpp di ñaan yàlla daal yàlla may ñu fekkee déwén incha allah. yàllaa ko def tey ragal péet nag day xaje ba féeteeg moom nag ba mu saf maam numbe mii daf ma bëgg ma bëgg ko ma féeteeg moom nag te dëgguma ci dara maam numbe bu ma demee kër Ablaye ca kaw la may teg sama góor a ñëw na di indi ndox mu sedd mi di indi boisson bi indi ceeb yeeg ganaar yeeg misiw yi di ma ko jox. bëgg mam moma bëgg ma bëgg ko ku la bëgg nga bëgg ko dawuma ci dara mam nu bi rek jusqu'à la mort nang sant yalla julli ci yarante bi sant suñu ar wajur man cant gi maa ngi koy jëkk ca maara sama sama mag de ci touba maara ciun yaay ya, ablay Mbay peex sama mag di nga xamne dafa ñew fi ñu di xale bu tuddi ñu ko cheikh Mbay bayu ablay muy xale rek top di muñ rek ci peex gi su ma masaan ñoo gane si ko fii ci peex ne ko ay maara sonn nga mun ma ah, kay di mboola damaa bëgg rek boo liggéey Ablaay sama doom ji bu waxee ci peex ñu déglu ko tax lu ma faay def danaa ko muñ lu ma bàyyam def danaa ko muñ luñ ma fi sant danaa ko def lu ma mën danaa ko fi def ndax damaa bëgg boo liggéey Ablaay Mbay bu waxee ci peex ñëpp déglu ko waaye defe naa na nañu soma doom ji nag Ablaay nag rusloowul ndeyam warul ndayam ndax yaay bu ne danaa toog ci kër muñ ba dee ndax dama bëgg sama doom bu ëllëgé bu waxé ñu dégglu ko bu doom ja maggé aw benen yoon war na ndeyam russo na ko ablay russo wul yaayam sigal nako ñun ñi di ay ay rakam bokk ak mom bay ñepp yóbbu ñu màgg ku mbokk ndeyam taral nako ku mbokk bayam taral nako ñu bokk ak ndeyam ndey ak bay ñu bokk ak ndeyam bay ay bokk yëpp yóbbu ñu màgg sa sene te yalla woo ku mu ku mu yóbbul màgg na la jo xamni ji mat na pass màgg bëgg nak ay bokkam bis bi mu am tay ji jukkoo ma ko ko may ndax dafa bëgg nit ñu bax ñi di wax lu bax di jubale nit ñi du fekke lu ñaaw du wax lu ñaaw ablay noppi garmi la yor du degg lu ñaaw du wax lu ñaaw waye nak non la mara mel maam ju maam cheikh la ajartu ma da la yaayam mom mom la mom la mom la and laa ànd ak kodd mbay mu ajal ko mu ajal ma ajal yaayam ne sama yaay bu doon dund lay bolé ajal bi mu demee mu boole maag kodd ajal ma ajal yaayam ajal ma mosoo gi la baayam tudd satanki la baayam tudd caasin faanu mbeeg maysa faanu mbeeg kodd jëng faanu mbeeg armbaay faanu mbeeg armbaay faanu mbeeg maamam lañu yóbbu njob jox ko may sa xari mu tufa lambaay ma daawur ngewal mu tawloo fa àllaa seex yirum du baan bàyyi àllaa gi sàmm dëkk maa nag àllaa gi biram bi jeexal tëree kër sextaat bi biraakan ma jigéen maamam ma ngi ceem may sa faanu moo jur na tubaar fa kàllu Codé Dieng Faa Numbe moo taawloo aljaalo bàyyi àllaa gi dem ba faatu mbeng mi nga xam ni bi mu dëkk bu ma sa fanaan ndaanaa ne ñëw fa jël xalaat bàyyi bëkkëri bàyyi maxo sama door sokk di baax te dog bi mu gàcce yi aljaalo ak faabari ak mataar numbe ak jam jaalo ñoo bokk ndey ak bàyyi fërimat Codé Dieng leen jur ci asun faatu mbey topp jur mbabba mu jur birakat mu jur mbabba mu jur sant sama yaay may safaanu be topp ci seex biram ko du jur ko mu jur ba sëy noog asan ak ma mam maam mam maam seex la ma kumba njoogu maamam seex la seex biram ko du maam koy dañ koy sank ci tuwaawan dañu kas bàmmeel ba pare lem koy xeli ñu dem gis àllaaji si ah, si ah, sëñ sëñ Babacar ne ko seex biram ko dafa nelaw ñu koy sang lem koy xeli te bàmmeel ba xamuñu lu tax mu leen sëtu Cheikh Saad boo fa tëddoon di ko di ko di ko teeru ba weeram seet kon Ablaye nit ku baax la maam ju mu doon seex la maam ju mu doon wàllu la waaye yàqul boppam nag ndax di dameel mbaa ngay teeñ din sëku kan nit mooy bu ànd ak nit ñu baax ñi di wax lu baax ba kenn mun laa seede lu dul nit ku wax kat lu baax la lu ma am jox na koy bokkam wërsëg ko yàlla jox lekk ko moom dong bàyyi ay bokkam Ablaye lu lu yand ci poosam bii rek jox na ko ay bokk dama koy ñaanal yàlla nag ndaga maa ngi day ma bokk bàyyi mu won ma yonanti bi wan ko ngóone sama mag ja ca ca pero wan koy bokkam yàlla na ko yàlla dafal cat dama koy ñaanal daal mooy yàlla nay ko yàlla may jàmm may ko njabootam may koy jabaram lafal ko cat fu bëgg yegg yàlla na fa yegg ci bi dama koy ñaanal rek moo ci def yàlla na ko yàlla yokk ba mu yëg ko ci daraja yi sëñ ba mbokk ndeyam góor gu Jóob sama doom ju baax ñi nga xam ne moo ma yor ba bàyyam demee ba nag ni mu tànn ba soxna ñaan borom jaam ñi saa xewar madun saa xewar madu xuré jabale ñaan manu booleeg bakkan te gille Ablaay mbokk ndeyam góor gu Jóob séeri mbabba mi mbokk ndeyam As Jàllo ak abi mi jox caat ma yaada ak nday màggat yéen ñaanal yàlla moom magam jooju yàlla guddal seen fan yokk leen Ablaay bàyyiwuma benn yoon Ablaay dana ma jox tabaski dana ma yónnee xaalis dana ma wéef dana ma defal lu ne ndax man rek la des na nag man man rek maa yaayam yàlla na yàlla guddal fanam daal laay wax. Cheikh Massamba Maya Ba caatu mu Cheikh Saajay sin bacci caatu Cheikh Saajay may doone Cheikh Saajay may bisa sana Cheikh Saajay Cheikh Saajay sin bay doone Cheikh Saajay may bay Serigne Khadim bay caatu mu Cheikh Saajay caatu Cheikh Saajay may doone Cheikh Saajay Masana sëñ Bàcci caatu Seex aje mbay tu mu Seex saaje caatu Seex saaje mbay doone Seex saaje mbay bi saasana soxna numbe aje mbay doone Seex saaje mbay maami soxna numbe aba caatu mu Seex saaje caatu Seex Saaje Mbay doone Seex Saaje Mbay bi saasana